waaye ñëw fi indi xam-xam di wax ndax booba tey maa fiy wax Pape Makhtar Kébé bu waxee maa wax Pape Makhtar Kébé mii man lay waxal Abdoul Aziz Kébé bii man lay waxal dafa am ma xew-xew bu ma amoon ci Thiès gis tournée alxuraan bu may def sëriñ Abdoul Aziz amee ah, ñëw fa wax bay dem ne maa ngi dem bàyyi Pape Makhtar Kébé mu waxal ma waxal alaaji ndax kuy wax ba jur doom yoo xam ne seen wax xar-xari doj la nga maa noppul kon nag ñëw fii ci géew bi di xëccoog say doom bu ma ci fekk li may def mooy sant yàlla bu baax a baax am na benn aaya waa aljana bu ñu duggee aljana ñoo ko wax waaye mën nañ koo abu fii képp ku yàlla jàpp ngay wut lu baax yàlla teg na ci yoonu ba nga am ko man ngaa wax aaya boobu te mooy alhamdulilahi lasi hadana li hada wa ma fii ku fi yàlla baaxee ba nga si war ngaa sant yàlla maam waxoon alayna alhamdu hamdan qarrahina shafaana almuqa fi kulla diini mu ko Seex al Xaaji Maalik nan lañ fa nahmaduhu wa nashkuruhu dawaaman kasil imhaali mun lahu bi diini nee na xeetu Muhammad sayyidina Muhammad war na fu ñu toll di sant sant yàlla gu sax ñoo tax ndax yàlla daf ñoo yebal koo xam ni saafara nañu mbooleem jàngoro yi jàngoro yi réer jàngoro yi bokkaale ak yàlla jàngoro rëy rëy jaamu xiram kañaan soxor lekk mbedd dafi ñaaw téef yépp yàlla yónni ñu benn médecin bu nu opéré di ñu ko mu seet ko nag war nañ koy sant ñu ne ko nan koy sante mu ne fa nahmaduhu man sama ki ba jàngal sëñ Alaaji Kebe te li ma jàpp man gëm ko mooy jamonoom ña mu tolloon kenn ko ca kenn gënu ko ci woon a dàqoon a jàngale ku mënoon a jàng ku ma laa woon biir ca xam-xam la mënoon a jàngale da wax na damay wax sa papa ba tax ko sa papa bu day jàngal li tax muy metti ci saage fi bu toog lay bëgg nga dégg lépp ni mu ko xamee la yëpp nga xam ko ci saasa lépp la lay yem ci saasa te bu ëllëgee boo ñëwee laaj la ko boo ko waxul du la jàngal tey nii la ma ko firi la woon fa nahmaduhu nanu sant yàlla cantu làmmiñ wa nashkuruhu nanu sant yàlla cantu xol kasil imhaadi ndekki boromu bekkoor mun na koo xam ne xéewéef na la koo ñeel ko bi diini ci waame baykat yi yomb nañoo dégg la gis nga gàncax mu sax neex a xool naat ba nga am yaakaar mu jékki-jékki yàlla ne kër sa téye ak tawam ba gàncax nga yee lax lax sa yaakaar di bëgg a tas nga tëdd ba guddi nga dégg mu dund fanaa nee waamee bu bët set te sa xol bay tooye yàlla Seydou Hadj maa nga ne sant yàlla noonu daa iman kon loolu war nañu def ko fii te ñaanal góor bu tedd googee kenn ku defal sam jagle yàlla fàttewul kenn dafa pàcc pàccal cir yi waaye nag cir yi yemuñu unsur la wax mu ne unsur la ba nga déglu mooy wax mu ne kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd narfa'u darajaati man nashaa yonent yi sax yemuñu wala qad yàlla mayoon na ay may ay jant yu demoon yu rëy li yëgg dayo bokk ca rijaalullah te mbooleem al axlaaq an nabi la yi ñu leen di xàmmee mu nekkoon ci moom ndax maa mas a seet Sëriñ Tijaan Faas maa ko laaj ne ma xalifa kay ma ne ko si mu ne ñuy wax Seydil Hadji Malick de xaw ma nit yàlla la am waaye téere bu ma liir fekk ñuy wax melooy nit yàlla meloo yooyu nga ca moom waaye alaaji am de itam xam ngeen bokk goo ko moom taxul lii dafa am benn bis Mansour Sarr mu sëñ Mounirou Sarr di gërëm sëñ am ci dëju soxla ko mu Sarr sëñ am na ko sax wax ji day li ko tax a dëgg te ma nangu ko mooy yow mi koy wax gëm ko man même ko waxee ci man jëme ko ñi koy déglu gëm nañu wax nag ka koy wax gëm na ko ñi wax wax jooju dëgg waaye xam ngeen alaaji Abdou kenn ñemee wul ne nitu yàlla mboolem jikko yi ñuy wax xam nga yonante bi sallallahu alayhi yóbbuwul jikko yi fi la ko bàyyi nu boo la yóbbu lu waral taxallaqu bi axlaaqillah xanaa loolu rëy la taxallaqu bi axlaaqillah da ngeen jikkoo jikko yàlla ñu ne ah ku lay ne yàlla mu ne waaw yàlla dafa tabe bëgg ko tabe dafa lewet bëgg ko lewet dafa maanu bëgg ko maanu dafa sell bëgg ko sell dafa am jàmm bëgg ko am jàmm loolooy jikko yàlla alxaaji Abdou Aziz nag yàlla dogal na mboolam jikko yu mu jàngoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jikko woon na ko loolu moom ñeme naa ko li may ragal safara yëpp ku teg ma teg sama loxo waat nu wooga nag yonante bi yóbbu na ko kon léegi laa wax Seydou ne ko sa maam ju tedd ja nga xam ne kenn du moom waaw kenn du moom ah dañ ne ñaar am na ci àdduna tur bi waaye am na ñoo xam ne kenn du leen tëkkale kenn ko bañ nag ndax yonent bi am na kuñ ko doon tëkkaleel ba bind leetar Musaylimatul Kazaab olof sax daf naa ne yàlla ne yaali yàlla wut na uj alaa ñu ne alaa mu ne inna mu ne inna isbu mu ne isbu laahi mu ne seytaan alaa inna isbu laa laa inna isbu fa jox xajjala mooy ñële almuflihoon kii alxaasiroon waaye yàlla fam ne iblis teg ko ci wetam da ko waxal loo bëgg ma defal la ko iblis am mbooloo mu ëpp mu yàlla fuuf kon tëggale yàgg na moo tax ñu yàlla ak yaadi waaye olof nee na nangu na tëkkale waaye nanguwul dendale ina asaar naa te du la naa jëf yi kenn du ko àtte ci mbooloo mu bari kenn du ko àtte ci cëfër cëfër kenn du ko acci ci peccaxoo ci jikko yi ña nga àndaloon na nga leen yare na nga defari seen jikko na nga tarbiya seen ruu la la intéressé woon tamit istixaaba ba nga teg leen ci istixaaba ñoom ñëpp képp ku Seydi El Hadji Malick yar mbooloo mii bi ñu jul ñëpp a jóg kenn tiimul xanaa ko am ngànt kon góor boobu yàlla na ko yàlla fayal maa ngi bëgg a weddi sama bopp ndax dafa nuyoo mu fi pour wax wax toujours papa na koy wax ne yonent bi moo ne man sanna sunnatan hasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ku njëkk def lu baax ba nit toppadoo la ca def gam ko def naa la ca fay gën ko njëkk def nga liggéey ci ma fay la ca ka ca toppadoo ma fay ko jël lu day la fayewaat la ko yow xam nga boo gisee yàlla naan wala yasfauna illa liman irtada xam moo am na ëllëg de safaatul kubra leen tiw waaye kenn ku nekk am nga kotaam waaye xam naa Seydil Hadj Malick kotaam Seydil Hadj Malick ñi mu jàngal ña ñuy jàngal ña ñuy jàngal ña ñuy jàngal li mu def ci ay saawiya lañ fa wasifa naatil xaq ba xaq yi fay ak salawaat yi fay ak nawaafile ak ñaan yaag yépp ba yowmal qiyaam lépp dañuy farlu day na def ko ci kotaam Seydil Hadj Malick loolu da koy ëpp danga ku bëgg a ram doon la mam ko wër ku bëgg a ram moom xam naa loolu waleel waarisi mayel yëpp doon damay bañ a sama bopp kon Sidi Ahmed loolu laa ñëwoon ànd ak sama njaboot maa ngi ànd ak Abdoul Aziz maa ngi ànd ak Pape Makhtar maa ngi ànd ak seetu xarit mbër waaye mbër maa ngi ànd ak maam Jaga Fall ngi ànd ak Moussa Mbaalo Moussa Mbaalo walla aji Demba Mbaalo mii lañ yónnee ñu ngi lay yónnee toujours def délégation daaw nekk nekkoon ci bopp délégation bi ren ci dem ren daf ko fekk Kolda waaye rakkam bi mu bokkam beeg bàyyi boole ko man yëpp kon nag di leen ñaanal yàlla yàlla na donay kër gi leeri kër gi barke kër gi ngëneeli kër gi njëriñi kër gi yaakaar kër gi yëpp yal na ko yàlla def ci yéen yaa ko yéen su joxoon seen kontaan nañu jërëjëf yaa nga tooñ waxoon naa la bu ma jiiteloo jiiteloo nga ma jamoñ naa damaa yéene sama bopp ñi fi nekk texe rek dégg mbokk yi suñu wayjur bu baax wi di bàyyi alxaaji xalifa kebe yal na yàlla dollee guddal fanam dolli ko wér dolli ko kàttan dolli ko aaral boppam mag ñi dañu baax te mën a nëbbu mi ngi ma naan léegi tooñ nga ma ndax yaa ma jiiteloo ma ni ko dama bari ay tilim tilim te bëgg naa taxe fii taxe ëllëg te am na ñoo xamante ni ku julli seen gannaaw ak loo mën a am mel rek yàlla jéggal na la te ñoom ñu maqaam yooyu làq nañ ko allahuma la adur ci bésu lan la ñu nekk ci ngoonu àjjuma képp ku ko xool bëtu cofeel te mu dëggu ci yow walla nga tëbbu ci moom doo lakk ëllëg incha allahu taala fu wér lañ ko teg ku ñu laaj lu tax te nga mën a am dégg-dégg ca tontu bañ lay tontu nga mën ci am dégg-dégg soo ñu laajee ñu tontu la waaye ku mënul am dégg-dégg bi nag jarul nga di ñu laaj waaye ñun li ñu wax gëm nañ ko insha allahu taala laa na sukk fii sikki sàkka du ci am waaw sikki sàkka du ci am kon bàyyi ñu ngi jéggulu toogaay bi ñu toog ci kaw ndax yaa fi Cheikh Al ak doomam yu baax yi cër bu Al Hadj am ci ñun am nga ko ci ñun joxuñu la ko yàlla moo la ko jox yàlla na yàlla na yàlla guddal fan wi yàlla na yàlla guddal fan wi yàlla du jeexal te tëlewul mën na lu ne waaw te nag moo ni ud'uuni astajib lakum kon ñu ngi toroxlu ci buntam di la ñaanal gudd fan ak wér ak kàttan ba suñu lépp ñun njaboot gi nga fekke lépp bi jaahi saydil wujudi ñu ngi fedd liwaat ñu ngi lay ñu ngi def ziyaaratal istimdaad yi wa tabarruki di yees luwaat maanaam di def tajdiid ci yow fa tabaarakallahu te di la ñaan suñu mahabba nga nangul ñu ko te nga ñaanal ñu yàlla yàlla bu ñu tàqalikoo suñu ngëm fii ci àdduna ba ëllëg ñaanal ñu yàlla tamit yàlla nattoo ñu xiirtal ñu ci ay santaaneem te daw ay tereem bég nañu kontaan nañu Kébé wallahi bég nañu kontaan nañu jërëjëf Kébé jërëjëf jërëjëf ngay santante ñu ngay gërëmante ku santul nit ñi doo sant yàlla waaye ñu ngi lay seedeelaat te di ci wuutu ña nekk barzak tey ak ñi fi nekk ni di suñu kilifa yàlla na yàgg ci sa doom ji ci sa doom ji waaw Mouhamadul Muxtaar Kebe ataala allahu amrahu wa baqaahu wa ayadahu wa nasarahu bi nasrin mubinin min indi waaye dal bàyyi xalifa ku baax a ngi ne suñu nee mbaax nag bépp qualité bu ñu mën a nawee nit jullit xaqan jarul ñu di ko lim mi ngi ci biir mbaax kooku waaw lenn rek de mooy defoom dafa mën a nëbbu Baye Abdoulaye baax daan na wax ni eh, kebe kebe yi baax nañu lool tabe nañu lool waaye am na loo xamante ni daal nuñ ci tabe mu Maxtaar jox ma <laughs> ci dëgg la dëgg la ñu tuddee comme ñu tuddee xabaar jërëjëf jërëjëf jërëjëf te ni ñu ko seddee ci moom noonu lañ ko seedeel tamit ci papa Abdoul Aziz mi du ñu lim daal dégg naa sama bàyyi Serigne Babacar si suñu Serigne yal na yàlla yokk leeram te taas ci barkeem daan na wax ni boo amee sa mbokk te li nga xam ci moom yëpp muy lu rafet lu baax boo bëggee toog benn jataay limal ko ko bu fa jógee fakkastalu moom la kon li ñu la déyaat léegi rek loo ñu nar a ñaanal ñaanalal ñëpp dem fa taba maam mbër nag moom làqatu ji nag te moom mooy maam ji jërëjëf Kébé jërëjëf jërëjëf jërëjëf dana ah bala ñu tëj naa la ñaanal ñaan ma ñaanal sama yu dafa ñëw ci sama sourate alxaram boobu may wax dafa xëy yónnee benn camionnette il faut ko nett bi ci ñaari xarit traduire ñetti saako mm. saako dugub saako ceeb saako suukar mm. ak benn enveloppe mm. Pape Matar bi mooy def waxtaan wa ca ngoon Pape Matar commencé waxtaan ñu seen oto bi ñëw ñu naan moom laa du moom ba mu am si du moom toog waxtaan ba sama xol dama ko góor gi yàlla na nga dund ñeenti téeméeri at mu ne du ngeen ne amin da ngeen ma ko loolu la wax da ngeen ma ko yéen du xalifa wax mënta am man jox naa sama loxo ko am ñeenti téeméeri at xaw ma Nigéria xaw ma Sierra waaw loolu waaw Nigéria da jox naa ko am ñeent weer daal yàlla loolu tuuti dara am na génn góor bu dëkk Pakistan mm. dañ koo fekk mu yor nga taxu sukkar di yëy nga mm-hmm. taxu jàmm sukkar mm-hmm. am téeméer at ak juróom-ñaar fukk ànd ak sa sam bu am juróom-ñaar fukki at ñu ne ko góor gi gudd fa da yàlla koy maye waaye yow loo ci participer mm-hmm. mu ne ah, man de booba xam ne ba léegi musuma def lu ma mënul ku ma liggéey fu ma sonnee bàyyi musuma yenu lu ma attanul musuma yëg ci garab musuma dugg ci pax musuma lekk te xiifuma musuma suur te bàyyiwuma musuma tegale ñaari musuma jaawale sama soxla ak kenn sama soxna ak kenn lenn daal la ma yàlla xiir ma bëgg ko te mooy café te du ma ko sukkar waaw ko defee nag yàlla mi maye ko loola ñu ngi leen koy ñaanal yoon leen ko yàlla may waaw amin amin baax na amin amin moom buñ ko tuddee li ngay wax lépp waaw parce que man xam naa li nga wax léegi xam naa fu mu ko teg. mbooloo bi ngeen xam ne kii way juróom moo ma jàngal. ñoo bokk ndey ak baay maa ngi way juróom waaye moo ma jàngal ba tari loo ma alxuraan waxuma ko nag pour wane ne. ba ko waaye dama koy sant yàlla. faas gii laa daan baagante diggante pénc ba suñu kër waa faas gi nii di tari. bu weeri masaa xëy maanaam weer weeru koor nun dundi gungee weer mooy alaaji Faati Kebe lu génn moom ci këram si alaaji Kebe mu gën waaye man Mbay Kebe Omar Kebe ñii ndaw dañuy baagante yi tari loolu lañ ko daan gungee papa ma jàngal tam lu ma xam moom ko jàngal fa tabarakallah boole ko laa biir lool nag waaw waaw nañ bokk lu ñëpp jàng sa ñaanu maam nga def faatihatul kitaab ayatul kursi sooratul ixlaas waaye faatiha bi ñu jiital auzu billahi mina sheytaani rajim teg faatiha astaghfirullah alazim allazi laa ilaha illa huwa al-hayyul qayyum salaasa maraat salaatal faatiha benn yoon laa ilaha illallah salaasa maraat bu mujj bu ñu tekki sayyidina muhammad rasulullah jàng ayatul kursi sooratul ixlaas salaatal faatiha yéen a si jaamu yàlla jox ko yonent bi xel waaye lu mu ëmb lépp nag ñu yéen a waale abdul asis dolli ko ay leer ki may bokk yu baax yi mu nekk ba ca bay juróom ya aasbillahi mina shaytan أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم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 lahu ma fi samawati wa ma fi l ard man dha alladi yashfau indahu illa bi isnih yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yahiituuna bi cheyin min ilmihi illa ma shaa wasia kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyu al azim laa ikraha fi ddiini qad tabayyana rushdu minal ghayy faman yakfur bittaaguuti wa yu'min billaahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqaa laa infisaama lahaa wallaahu samii'un aliim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 bi jaahi sayyidina muhammadin rasulillah